janvier wala sax décembre sax parce que bi tej tëj parrainage c'était au mois de décembre. bien sûr ñom nénañ nañ juillet ak décembre ci lañu fexé ba am mbolo bu leen parrainé. Mhm. au minimum quarante quatre mille. et mhm. quelques. oui pour liñu liñu li ñu laaj ci parrainage bi. Mhm. kon ñoom xanaa dañu am ay baguette magique xanaa. moo jaaxal ñëpp. dañoo gën a chance <laughs> wala boule bi ci seen côté la gën a tourné. Uh-huh. parce que loolu laaj la rek damay mm. laaj. ci ñoo mm. xamante ne depuis une année derrière gisoo ñu def le tour du Sénégal ñu ñi may wax ni waxuñ sax né dañu bëgg a nekk candidat à la présidentielle mhm. gisoo benn cellule wala session bu ñu monté ci dëkk bi ñu né ñi dañ la leen soyez candidat wala dañ leen demander né leen présentez-vous à l'élection présidentielle je pense que ñi ma wax nonu té ñu présenté wu amul benn Euh, ndaje bu ñu woo en tant que taskatu xibaar ne ay nit nee nañu ñii nañu poser candidature ci présidentielle ñoom ñoo ne dañuy nekk candidat qui dit bougat bien sûr ñoo matal ko. Euh, face ñi d'office. face des des depuis 2019 mu mhm. Idrissa Seck deuxième à la présidentielle mu ngi fi le mhm. pur. <laughs> un parti très organisé dem ci Sénégal am nañ cellules. Mhm. am problème parrainage le PASTEF. qui a parrainé Bassirou Diomaye ñoom it ñu ne problème mu parrainage. mais loolu loolu nak, loolu laa bëgg ku ci expliquer pour mu mën comprendre fiabilité. Mhm. ak crédit bu ñu jox ce système de parrainage. oui parce que si ko comprendre rek nga comprendre lan moo éliminer nit ñi. Mhm. et ça va être difficile pour nit mën ko expliquer. Mhm. loolu moom kenn mënu ko gaaw a expliquer. c'est pour dire que fichier bi a na problème. base de données yi candidat yi liggéeyee pour dem parrainage. am na problème. Mm-hmm. léegi nag ñoom conseil constitutionnel pour ñu segg ak ñu bàyyi ñoom it critères yi ñu ci teg amaat na problème. Mm-hmm. donc c'est un parrainage à problème. c'est un parrainage à problème mais qui est nébuleux. Mm-hmm. un parrainage wax dëgg yàlla bu amul dara. ci clarté il y pas de clarté. ndax su amoon clarté bu ñu génnee kenn du jël ay kenn du kenn du nar kenn di fupp te li ma la laaj yéen. Euh, posez-vous la question comment déjà c'est des gens yu fi yàgg am fu ne dem fu ne ci Sénégal waaw may nga poser ki yooyu nga mën a poser question nga mën a laajte fiabilité euh, filtrage bi ñu def ci parrainage bi ay nit yo xam même pas juillet août lañu ñëw ñu né ay présidentiable lañ tay ñooñu ñoo jall d'office au la main ay nit yu fi nekkoon foo dem ci Sénégal fekk fa seen ay cellule fekk fa seen ay session fekk fa seen i militant ñooñu ne mënuñu jàll mais il faut nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Mm. Les un crime n'est jamais parfait. Ce qui est le décrédibiliser. c'est les les soi-disant massistes les candidats de masse les candidats d'appareil comme Benno Bokk mm-hmm. comme le Parti démocratique sénégalais comme Khalifa Sall. ils mm-hmm. ñu ñëw indi parrainage des élus. Mm-hmm. pourquoi qui est au pouvoir. qui a les coups de qui a <laughs> millions de parrain oui comment Benno peut aller passer avec le parrainage des élus. ana 4 millions 4 millions yi Benno dem <laughs> avec le parrainage des élus. le candidat de Benno lan la xam lu ñeneen ñi xamul ba mu parrainage des élus. Mm-hmm. surtout que ñoo au pouvoir nous ñooy organiser cette présidentielle. Mm-hmm. voilà la question. ku am réponse bii rek di nga comprendre lan moo éliminer ñi ñu wutloo yeneen parrain yu ñu war indi ak ñi nga xam ne dañ leen recaler d'office ñoom mhm. ñoom amuñu sax alternative pour euh, dem di wutiwaat parrain mhm. c'est pour diir que si présidentielle bii la ñu gis un candidat tam am fit indi ay député yu amul nee daa bëggoon jàll pour présenter ah benn euh, machine boo xam ne am na benn sérieux bi am na benn rigueur bi du sañ a dem di wuti député yoo xam ne euh, d'une manière fictive la ko wute c'est parce que dafa fekk système bu yaraax boo xam ne mën nga sarale ba jàll mu ne man naa saraxe ba sarale ba jàll xëy na peut-être il n'est pas tombé sur la bonne porte mm-hmm. tout pour dire que euh, ce cette cette élection présidentielle de 2024 démarre très mal Mohamed mm-hmm. parce que li fi amagum ci biir processus bi wanewul vraiment des élections libres et transparentes libre je dis libre pourquoi parce que ni ñu bëggee def sélection bi lolu dafa dafa dafa dafa dafa feign quoi dafa flagrant parce que tamit nit ñi xel lañu ñu yor ci xalaat les sénégalais ne sont pas dupes je vous ai cité cette liste qui sont des des candidats qui ont qui sont admis d'office nga mën ci génnee ñu mag ñu waroon na ñëw ak parrainage citoyen ñoo ñu daw làqatu ci parrainage des élus ñu indil ñi ñenn ñoo xam ne ñu ne d'office la lañu ñu jàll te yow bunoo dem Kunkande fekk fa militant wu peut-être am ta Babacar kañ la commencé ba mën fa installer cellule wala ay représentants ñu ne ñu ne moom valide na 10 régions sur les 14 régions du Sénégal. aidez-moi ah. aidez-moi à à comprendre. je mm. c'est une femme on soutient sa candidature. Mm-hmm. mais aussi on est obligé quand même d'analyser les faits. On analyse les faits. On ne stigmatise pas, mhm. mais on analyse ces faits. Parce que aussi nit le fait que ma mhm. candidate la ci présidentielle doxuma fayuma ma ne parrainage la mhm. ana on nit ana sama ana ñooñu madame Mimi Touré li mu ne parrainage yi ñu rëkkale yi ñu ne nañ leen ko wutali. Mhm. nañ leen indil ñooñu pour ñu mën a vérifier ndax ñoom ñu ngi ci fichier bi wala c'est quoi le problème. parce que ci ban critère lañ waxee ne ñii ay doublon lañ wala ñii. ñu ci fichier électoral bi. parce que dafa yomb quoi man procès verbal yi j'aime j'aime. waaw mais il faut que ñu libale ko il faut que ñu ñëwaat ci. ñu leeral ba mu gën a leer ci bopp candidat yi parce que aussi ñi ñi dem déposer parrainage quand même ils ont le mérite d'avoir vraiment chercher dem wàcc ci terrain bi déployer des moyens logistiques humains wax dëgg yàlla et aussi am mbooloo bu leen pare ne am mbooloo boo xam ne cautionné nañ seeni candidature parce que ñi fi def meeting d'investiture ñaata lañ mm-hmm. ci ñi nga xamante ne jàllagum nañ dañ koy wàññi mm. donc yooyu noonu yëpp nekk fi sur la table on se lève du jour au lendemain pour diir ñii dem nañ ñii demuñu mm-hmm. ah loolu pour man c'est trop facile et puis baaxul ci suñu démocratie sénégalaise bi nga xam ne démocratie majeure hmm. démocratie mineure parce que lii fi jot a am wane na ñun on a beaucoup de pas yu ñu avancer beaucoup de jalons yu ñu poser et ça ça démarre par des élections Moi, déjà yàgg naa ko wax parrainage optionnel bi baaxul parce que biñ koy décider pour appliquer ko ci présidentiel bi xamoon na ñi mënon bénéficier wu ci parrainage boobu ak ñi ko mënul bénéficier wu et loolu ça fausse les règles du jeu <laughs> c'est ça doy tax équité amu ci équité amul ba pare égalité amu ci am ñu lésé mais loolu baaxu day mel ni ñuy ñu waaj def top départ Mohamed jiitu taxaw cinq minutes ndé fa taxaw dix mètres ci ginnaaw ñu bëgg ñu dawandoo bëgg àggandoo si même ligne d'arrivée mais c'est pas possible quand même c'est pas possible donc on n'organise pas des élections avec autant de ça. et loolu ça mérite réflexion Mhm. maintenant les candidats qui sont concernés mhm. ñom ñoo wara liñ euh ak fayda mhm. ñoo wara taxawal ak fayda lu mu jaral nit biaiser ce processus électoral mu jaral ko ba mu permettre participer et que nga sinon on se retrouvera vraiment autour d'une liste de beaucoup de questionnements autour. Et franchement, le Sénégal ne mérite pas ça. On veut vraiment élire un président. On ne veut mhm. pas destituer mhm. ni enlever un régime. On veut élire. Et pour élire, il nous faut un choix. Absolument. te de a ma mhm. euh, élection présidentielle c'est-à-dire li man mm-hmm. may na ma mas man ma am sentiment wu ñu ngi jëm ci ab élection bu nga xam ne mm-hmm. véritablement boo moytuwul catastrophe lay doon te nag on a quand même la chance d'aller vers une élection bu nga xam ne wax dëgg yàlla dañuy ne ñu may sénégalais yi tànn mm-hmm. ku leen neex tànn un profil pour la première fois sax au moins sëriñ est-ce que loolu dina dal xel li ak contenu de li ñu fi wax yëpp non du dal xel rëq rëq yi du dal xel parce que toutes ces situations là gis nañ ko bi muy ñëw gis nañ ko ñi am lecture yëpp ak analyse yëpp gisoon nañ xamoon nañ ni fii lañ jëm. Mhm. droit au mur. parce que tout à l'heure je l'ai dit man du ma nekk si ñi théoriser naan parrainage bi sax am na lu baax ak nangam ak nangam parrainage bi baaxul. Mhm. parce que c'est antidémocratique ça ne respecte pas le processus démocratique. Mhm. mënoon dañuy dem élection présidentielle ngay ngay jël ay candidats di leen teg ci kanam di jël ñii di teg ginnaaw je l'ai dit benn bi mooy le 28 la ñu am ñu jall jeudi bi ak vendredi bi lutax tax ñu tay loolu ça mérite des interrogations dafa mérite ñu leeral ñu ko conseil constitutionnel leeral ñu ko. beneen bi ci am moy yàgg naa ko wax di interpeller les sénégalais ne leen trois types de candidats dina taxaw seen kanam des candidats parrainés par le régime te loolu dafa feeñ ci kii ñoom ñoo ñëw tey yàqal les potentiels candidats yi taxaw neexut a neexut weddi parce que président moo fi toogoon ne am na élection yi fi jot a jaar. am na liste yi ma parrainé. mais sabotage bi ci am. sabotage bi ci am rek daf ko firnde. Hmm. président Macky Sall moo parewul ci ay pexem ci réduire sans opposition bi ci élection.